danaa ko tawat ci nga xam ne fii nii ci laa mu tawat ko jëmmi baay yaa ay sa nii tawat ko yaa ay sa gis nga jaam yi ni seen saaxir bi mel ci rafet ak leer noonu la baati nii mel kon mu yokk ma dee ndax daf lu ko a tawat daan wax baay ba mu ñetti ne ko liñ bëgg mu nga ko jox ñu ko kon nag ñun ngi wax ne Baay Ahmed Baay Ahmed Baay Ahmed liñ bëgg xam nga ko jox ñu ko ndax wóor na ñu ne doom mooy baay te kii doomu Baay Cheikh Tidiane la Baay Cheikh Tidiane doomu baay la kon bu jógee ci dara bi moom kon bàyyi bi topp tànk bi man nag damay jéem roy ci suma sëriñ mooy liñ bëgg xam nga ko ko jox ñu ko. waxoon naa leen ne gàmm bi wala ren daje bi ñu ngi ko tuddee mawlidul Fati léegi. من المقصود أو من الفاتح إذا أب من المقصود أو من الفاتح الصلاة التي يفتح ba jaami yàlla yëpp xam ne ñun am nañu ubbeekaay loolu laa la ngir nag xam-xam ne baatini yi gën a sell ci mbooti ci jaar yàlla na yàlla jox la ci don naam waaye ci bu juufu ko wax yàlla na yàlla digal say doom ci mbooti ci jaar yàlla ñu toogee xel mu baatee loolu rek ma tax a toog fii fekk xamul loolu du ma wax. yal na yàlla dëggal say ndaw wax ci nguur gi kii daan yal nañ soobee yal mu baatin say di bara am waay. loolu lay fasee bu raakati boo jàllee mu daal. moom bi am naa ne kenn du ko remplacé ci palaasam di ko féetale ku dul Cheikh Ahmadou Tidiane منطقة لأجل كلمة تميس منطقة لأن سألت المرء بمرور يصحى من تميس أبي ساوي يا لما ba pare même bu fekkee ñun dañ bokkoon ci ñun ñoom la ko ne kenn di na wóbbu kataraan ngay wóbbu di sopp ci mbar tamit mbar tamit tees na wóbbu ba kenn bi du jeex baat bi du dox ndox la ba in lam ba in bi xaar xaar doo daay ba pas wokkaan naa xaw man boo ñoo xam ne ñee des sa saatu jaafi dina boo maa nga ca Casamance wallundu so taw yimɓe ɓe yarani mo ndeworeɓe ɓe ɗummari ladde araɓeji waraya mbarka he fa innahum yakfur biha haula'i fa in yakfur biha haula'i faqad wakalna qawman laysu biha bikafirina man min coñoñalako bolenaki sama bopp boolehun ma ci waaye boole boole wonaki sama bopp bokk ci bokk naa ci ndax nangul naa ko nangul naa bàyyi ne mooy yonent nangu naa ne bàyyi mooy Cheikh Mamadou Tidiane nangu naa ne yàllaay joxe te lu ma jox yonent bi ko jox allahumma wa ana al-xaatim maa ngi dugg ci biir gàllam caabi yi ñëw na kii ubbi bunt bi ñëw na doo ko bàyyi Cheikh Tidiane ñëpp mu ngi fi te yàlla ci soxla war a danañ ko am jamono ba maa wax loolu xamoon naa ne dana ñëw waaye xamaxoon ne ñu dana ñëw gannaaw bi la ma sotti wóor ne mu ngi ñëw kon su dee fii ñu toog mu toog fii la ma waxoon ca baxeema damaa ko fi dellu wax baxeema gii mu ne ah may wax arabe ne leen baxeema gii ñu ne ah ma ne yàlla rus na lool dana rus lool li fi li fi tee nit di ko yóbbu di tënk lim di ko yóbbu safara comme yeneen yi waaye ñu dem sun sun place bii nii yàlla dañu rus lool kenn di ba bàyyi ko dem di xamante gàllankoor ndax doomi bàyyi sax si jàng ñëpp ak doomi maam bi la baal ñu ngi fay toog xalaat ne xaaja ni sun xaaja dana faj maa ngi sukkandiku ci ud'u llaaha wastaqīmu wattaqūhu annakum mustajaabun inna llaaha laa yaqbalu bi qalbin daanin boo xam ne bii nii dafa nekk di sikk a yonent bi nee na yàlla du nangu boobu mu xol ñan ama ci ñu may sikk sax ne yàlla danañu nangu daanaka bu dee gaaw la jigéen ko waaye tënk ne nag bi ñëw ndax li bu bekkaay yaay yaru wàcce nga ndax def nga ba bëgg lo xam li ni ñun ñoo ko waroon a def kon loolu ko ñu ngi and di leen jukkal ci yëngatu bu rëy bii nga xam bi mam nga def am bo bu ma sax bokk bu ñe bokk dañuy xaan ñu ñëpp di sa door dafa ko mën lii yow ngay kenn yàlla ci bëlee la ci barke maam Malle Thiam nga mën a def lii yow kenn ci sa ci sa mbir ak leneen leneen ak leneen ak leneen wa maa nasru illaa min indillah te xam ne in yansurukum laahu falaa xaaliba lakum benn soxla du la demee ndax yàlla moo laa dimbale te benn méngoo sa ndimbal ba yow al qiyaamati ba ilaa abadil abidin junne ni mu dugg de tànk bi ñu dugg ci bu yomal xëyaamee nit noonu laay defee rek ñu dikk rek ñun ak ca garle nit ñi yëpp ñu ànd rek dem ñu ànd ak yonent bi ak Cheikh Tidiane ak Baye ak Mayra Fall dugg ci biir àjjana xel yéen loolu mooy man ku la mën a jëriñ ci yomal xëyaamate fii la daay commencé jëriñ koo xam ne fii du la jëriñ bu yomal xëyaamee du la jëriñ dara tos lan la ñu mën a jëriñ gis ngeen ko lii gisaare ëllëg kon nag takk yi li man xaqala lii isaara doon def takbir liman xasala lii isaara doon junj la waaye dem doon na képp ko xam xel dem doon na ñun dañuy dem man it dafa soxla rëy mu yëpp tësul moo ma nettali jox ñu ko bàyyi ak ni mu ko jàngalee ak kan la ko jàngal ak waxtu wan la ko jàngalee. ne dañoo wasifa ci jàkka ji ba pare mu ne naa ne ne baal ma ne mu ne maa ngi nii mu waaxu ba ci raay bi dañ taxaw tuuti oto raay baxee ko boori ngeen yeneew di jàpp ci Medina di diri ay wobam bàyyi na ko lu defal ne lan lii lan la mu ne ko lii de saxaara lañ koy wax walaay moom loolu mooy turam soxat si génne sax rek moom lañ tudd waaye jëmm boppam yi ko mu ne ko lii moo tudd saxaar ma si ngi dëkk ah, mu ne ko lii de wogo lañ koy wax ko ci saxaar mooy dañuy tax ci saxaar bi mu ne ko gis nga ko yàlla bi lii laay wane ku nanguwut te dugaloo moteur doo def moteur bi benn la mooy bàyyi ñett mii taxaw wogo yi yàlla ak keneen ak keneen ak keneen bu dugg ci wogo bu wogoo wogo moteur bi la wut ku dugg ci wogo yi bu wogoo wogo moteur beneen du la yóbbu la yóbbu waaye bu dugg ci oto bi nag beneen moteur nekk fi bi benn la muy ba mu bàyyeekoo ci hadratul itilaf te balaa mooy diine hadratul itilaf ca kanseetul xaqi moteur bi gànna la rek borom jamono bi gànna la rek laay def jamono bu nekk benn laay dikk bu dikkee ku tës rek moom dugg baax na ku tësoon na moom bu la xaar rombee ba wéy nga dikk fekk bàyyi dem bu yàgg boo koy ji toog nga la nga ci sa dem xam nga bu moteur bu àggee rek boo koy ji def dañuy àgg mbiram yàgg nii mbiram yàlla ak nii la mbir mi taalibe yi ñi nga xam ne ñooy sëriñ doon ca dara defañ ca dara manoon ca dara yéen sëriñ yéen ñuy xooloo sëriñ laa di wax la xam leen ne maa ngi defoon ne ne tuuleeku dara kenn tuuleeku dara ak kum mën a doon dugg leen dara da leen def seen bopp ngeen di dara dugg leen dara ci biir réew mi ngeen nekk buñ ko yëgee wàcc leen ndox da ngeen dem ku ci wàcc du dem ku wàcc du dem kenn joxewul ci machine bu mag ba kenn amul ko raayaat boppam te kenn mën ko demal boppam yi nag eh eh yëngu nekk ci diggante bi sëriñ bu mag bi nga xam ne mooy bàyyi li xam ne moo tax nit ñi bëgg leen dikk ci yëpp xamal leen nit ñi topp seen doon du yëpp bàyyi la ba leen naa fekk ba leen wóor ba leen naa fekk ba leen wóor ba leen naa fekk ba leen wóor qad qaala laha fa amkana minhum rek moo ca topp boo nekkee ci dëkk yi moo la wóor waxu leen bàyyi la ba am nga rek mel ni yàlla xanaa yoon na la ci ba nga xam ne du yow mu waxaat ne leen jaar nañu dem di jaar leen ñuy dem du kooku ba leen ko jëm daa ñu romb la mébatal da nga mébatal loolu mooy àndoor ak bokk loolu mooy ak ak taalibe loolu mooy ak ak jëm ci yàlla laaj nañ abonné si bustaam yi ne ko ndax moo gën a a dimbale taalibe ci biir mu ne maqaama bi muy mu xéene ko ki mu àndal di ko hut bu ko defee mu am ko kële ñu lan moo gën a taalibe mu ne fekk sa boromam taala bi mi nga bañ a xëccu ci yow añaane ki la faree ko ndax lim la ji. kon ku ci gis ci ñun ku ñu gën a góorgóorlu nañ góorgóorlu seeni ko te nangoo ànd ak moom di góorgóorlu buñ toppantee noonu rek danañ dem. lim bee ko xamee ci islam foofu rek laay déglu te benn saxaar rek bee daw muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko doon ku ko doon doo nekk ci mosoor mukk ba a xiyaama ci doon yonent rek mooy nekk mosoor nañ dugg ci saxaar bi woo ko ñu du fees mukk te buñ duggee ñu toog te xam ne borom tool bi moom jamono boo nekk mu koy te nag nañ góorgóorlu ci balaa wa maratan oxra ta saraw na xajaban bi sirisil xan mi imaamu na jaba fay bu baay bi ni mu rëy fay bu gën a rëy bu di dee loolu de dana xumbala وحملني يا ربي لا إله إلا الله cay faydu ba pare mu ne nag wa maratan uxra qad sadawna ajaban bi sulusil qalbi imaamin najwa ni ngeen di yéemoo ci faydu baa bi ci Seexu Tijaan noonu ngeen di yéemoo ci faydu baa bi ci baay bu defee rek mu gën a neex gën a baax yoon li tawee ko wa saxal si laaj yoon wala nag bu nekk tawee ko wa saxal si وقربت لا أملت وقربت جيران نا كما نه بوكو ناخه ak boko nafa def xarastu jegeon na jox na dama neex lu dama neex jël ko neex ak lu bokk yi di jeex ba yàlla di doonal ñun jamono ba nekk yaa ngi bokk ci ñuy jëriñ mbokk taale bi yaa ngi naa leen ñaanal maa ngi leen di ñaanal yaa ngi nekk baax ak taale bi Eh, jox bi lonk eh, naa ko lonk naa ko ci yow ndax yow yaa bette woon baay kon maa ngi maa ngi ñaan eh, ñaan da Seydina Omar ñaanoon du ñàkkaa taw ñu ne ko Omar yow yaa borom gud bi julli di sa taw mu ne ay yomb ba dee xabaar bi mu ne ko mu li ci yonent bi na ko yàlla mu ne ah mu ne ko ah, yàlla ah bàyyi ah ci barke Ba ñu noonu nga xam ne moo toog nii bokk ci yow li bëgg ñu ngi koy waraloo ci yow. ba ci naa ma waxee loolu rek yàlla ñu ne dig dig dig dig dig rek ndox mu taw. xabaar bi mu ne du ma tëlim na ko yàlla man daal rus naa. Omar ne la bon moo rusuloo ci kanam. bàyyi yonent bi tax nga taw rusloo ko loo xamoon waaye man rusloo loo man ndax mu am ndax laa xamee loolu mu ne ko li nga nekk bàyyam ba pare dee lu jox ko moom jamono ba pare dee lu ko nangul loo ko nga xam ko waaye Abu Jahal mënu koy xam ndax Abu Jahal mën na koy am xamal ne nag moo waa ba xam ne bu mu tëdd ñoo bokk ak bàyyi yonent bi ñoo bokk kon nangoo fekk ak bokk mu ko moo tax ñu tawatalu ci barke yonent bi tawatalu ci jëm yàlla ji yàlla tawal ñu nga tawasulu ci jëmmi doomu Baay Cheikh Tidiane bi mu tawasulu ci Baay mu tawasulu ci Maam Baay Maam Baay xam ku mooy tawasulu ñu andee ko béykat boo xam ne ji nit ren laay commencé te dootul taxaw ba yomal xiyam te béykat yi li ñu dëgg yëpp yëpp daf cee dugg ak li yàlla dëgg te xamoon ko loolu daf cee dugg te dafay sax dafa dafa ala kulli haal gàmmu ngeen génnee tudd rek jàng la marmudu Fatick bu ba daaraaye loolu nag ci jéego réew ak nekk ci réew mi ci mag mi ak ndaw mi ku góorlu góorlu gi ak ku fàddani ci yi ñëppay bokk yemale ni leer ak jant day matalee boo jógee ba ci nit ñi noonu laa matalee ci ñëpp may yàlla ci bu dikkee ñu ngi leen di ñaanal siyaara bi yàlla nangu ko danaa ko nangoo yaa neen ko ay ak waaye ak moo nekk rek yaa ngi wax ni lii mosut fee am xam nga nekk rek yaa ngi wax lii mosut fee am yow dañu yaay yaa na yàlla def ci yow nga nekk walaatu teeñaloo kaayam mbëkte ak taaram jëmmi yàlla ji ak baax ak ak jàppandal yow tam loolu mu defal la ko ci sa kanam ndax am na jamono boo nekk xam-xam yàlla jox la loo ko mën a feeñale mu joxaale la fan boo ko andi nii da ngaa toog di ko feeñal di ko feeñal di ko feeñal di ko feeñal di ko feeñal di ko feeñal ba képp koo xam ne kii nii yaar moom a bokk ñuy laajte ana fii kan moo ci tolloo moom wala kan moo ci bokk kan moo ci nekk bokk moom kan moo ci tolloo moom ay nag kan moo ko fi mag surtout ñooñu ca nekk ci yàlla nekk di doxal mbir mi di doxal mbir mi loolu fan woo lu boo xam ne jàmm waaye terewul ñooñu itam ñu am fan woo gudd waaye nga jëtti leenu fan mottali sa sëmb te yàlla dimbalee loolu ci barke Baye barke maam Ibrahima Fall barke maam Malick Sall barke Sidi Ahmed mu Baye Cheikh Tidiane yi muy toog barke maam Baye mu barke doomu maam Ibrahima Fall ñu ngi sukkandikoo ci seen barke di ñaan yàlla ñaan nii ñu ngi ko lonku nag ci warlu maam Malick Sall daay dégg nga li ñuy wax baay dégg nga li ñuy wax baay xam nga li ñuy wax baay defal ñu li ñu wax yal na ñu yàlla nangul ci baaxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que Seexna Ahmad Tijaan Sariif parce que baay baay siyaare bi yal na ko yàlla nangul siyaare bi yal na ko yàlla nangul yal na ko yàlla nangul yal na ko gërëm yal na ñu jox ñu jëriñu siyaare muy siyaadatu ak siyaadatu ak siyaadatu yal na ñu ko jox. masalaamu ala sayyidina Muhammadin al-faatihi limaa ughliqa wal khaatimi limaa sabaqa ناظر ناس بالعقل والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين جل جلاله